Mauritanie sama waay suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci Ndakaaru mooy gunge ñiy yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ ay lampe abat-jour yu koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw si gaaw ah yéen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American Shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañ. Euh, tey macha allah li nga xam ne moo di euh, politique la ñuy dem. Eh, ki nga xam ne mooy Cheikh Bara Ndiaye gis nañ ne eh, ay weer mu ngi ci kaso bi waaye rawat nag jamono yi toll nii eh, kaso bi dafa métti ci moom trop ñu ngi wax feebar ba nañu ñu ngi naan mu ngi ciy diggante dund ak dee ñu aussi itam dégg ne kenn mënu ko yóbbu lenn loo xam ne lekk la wala dañ koy denc bu baax a baax kenn ko gis tey ñu gis ne aussi itam Serigne Mountakha Bassirou dégg naa ci ay kaddu ñu ne yónnee na ko ndaw mais ndaw bi mënul gis Cheikh Bara Ndiaye ce que loolu yoon la wala yoon loolu buñ ko waxee mënuma ci juger parce que man gëw ma ne loolu am na man personnellement sama engagement la gëmuma loolu mm-hmm. mais li may ñaan ci Cheikh Bara Ndiaye mooy da di murit di taalibe te la muy liggéey mu ngi cay dimbali ay jaam ñoo xam ne ci moom lañu yaakaar sama mbokku taalibe la wax dëgg yàlla wax na lu ëpp def na lu ëpp ndax yoon ku mu jotee rek yaa def la yoon jotee ak yow kon man yoon laay ñaan mm-hmm. tàmbalee ko ci Antoine Diome mm-hmm. mi nga xam ne taalibi Serigne Saliou bi man dama koo naw ngir yaru mm-hmm. waaye dama koo naw ngir taalibi mais dama koo naw ngir liggéeyam bii nga xam ne sunu réew mi ku fi def vingt quatre heures def fi doon doona balaa vingt trois heures ñu jàpp la dëgg la man loolu laa ko nawee ba tax na man taalibe bi man taalibe Serigne Saliou bi man alali Serigne Saliou bi maa koy ñaan di ko ñaan président de la république sunu président président Macky Sall di ko ñaan oppose état bi yëpp ak képp koo xam ne rek ba ci Moussa Fall maa ngi ñaan justice nañu baal Cheikh Bara Ndiaye barke yonent bi maa ngi leen di ñaan nanu ko baal mu oh. màggale ji këram màggale ji Touba togg berndeem yi mm. te xam ne lii nga xam ne ci lañu amee moom jafe-jafe bii man wattaa ko ci Serigne Saliou ne xam naa dootu ko defati bu nu xool bu nu nit damay ñaan diggante jullit ak moroomam mm-hmm. ci barkeb sëriñ Saaliw maa ngi leen koy ñaan na nanu ko jëggal Cheikh Bara delluwaat ci jabootam ci màggal gi mhm. man loolu laa war a ñaan mhm. te loolu laay ñaan te am naa droit ñaan ci réew mi ñu may ma mhm. ndax bokk naa ci ñi nga xam ne bu ñu nee réew mi rek danañ ci wax te fa yéene maa jëmale kàddu gu ñaaw wala kàdd gu amuti yar wala teggin di ko tegal sénégalais ñu may déglu jombale naa ko sama bopp ba tax na maa ngi koy ñaan ci barke Serigne Saliou gouvernement ak état yëpp maa ngi ñaan nanu ma ko baalal soxna Aida Saliou mooy ñaan te war naa ñaan te su ma ñaanee ñu may ma. Mhm. ñu gis ne maman euh, fan yi dëkk bi xawoon na wàññeeku tuuti ci coow lu bari euh, aussi ndaw ñi euh, toogoon nañ dal nañ macha allah ci diggante ki nga xam Ousmane Sonko ak ndaw ñi gis nañ Ousmane Sonko làq nañ ko jant bi macha allah ndaw ñi itam dal nañ yàq amatul dara amatul lan ngay wax ci loolu. ndaw ñi dañoo def liy jàmm seen jàmm ak seen jàmm yaay ak seen jàmmi papa rek ndax ndaw ñi bari yóbboon woon nañ seen tension yaay hôpital yi ñu koy rang ñëpp seen kar jaagu yaay yëngu lii mooy jàmm ji bu nu defee nii nu def ni nu def rek lan li nu war a def rek lan def mooy réewum senegal bu situation ñëwee ci réew du ndawi réew ña ñooy jug xeex situation ba faj ndax ndaw ña dafa am lu leen ilif ban toll nen toll ci réew mi fi lan juddoo fi lan yaroo waaye réew mënu régler ba sa yaay accouché la fi ñu régler réew mi ba nga màgg ci régler googu ci ren màgg kenn faagaagu la kenn reyu la kenn defu la lu ñaaw kenn defu la dara nga juddoo ci réew mi du bokk ci borom këy di juddoo ci réew mi da war a yaru ba situation réglé yaa moom sa carte électeur li ngay xeex lan la opposition état la mais yaa moom sa carte téye ko ba vote jot nga voteel ki la neex mais pourquoi sànni xeer waa xeex mu ànd ak balaa nag ànd ak musiba xabtali yëngu ñu sotti géej gi ñu génne ay sarax mais waxoon naa la ko fii daani waxoon ko woon naa la sarax yii ma nekk man su dakk ma ne ci rek ngir bëgg sama réew ngir def ko ci sama réew ngir def ko ci mag ñu baax ñi fii nu tëdd jàmm doo nga fii mucc ku fi indi sa balaa di ko yem dereti bopp nag du may bopp borom ba waaye maa ngi ñaan bu nu mënee may xoolal xolal Sonko sax Sonko sax ñi ngi ñaan nañ ko ba mu ñibbi ndax kasa moom kaso moom kuy jullit ci àdduna xam li ci kaso sa kër dong bu sa bañ dee metti mënoo génn sa kër sa njaboot nekk ci biti nga ne ci biir néeg bi mënoo génn rek loolu coonal ba tax na man yéenewu ma benn jullitu àdduna kaso ak hôpital ak naqar ak jooy yéenewu ko ku yàlla bind ndax man alali sëriñ Saaliw laa maa bëgg jàmmi réew mi bëgg réew mi am jàmm nit ñi dund jàmm di yëg jàmm di yëg tawféex ci barkeb si. macha allah yaay booy euh, ba léegi rek euh, foofu la ñu nekkaat ak actualité ñu gis 2024 léegi mu ñëw tey waxoon nga ne euh, yokku dina jóge fu mu fu mu ko fegewul ki nekk président incha allah ba léegi kenn bàyyi ko xel position boobu ci nga nekk ba léegi wala changé na affaire. waaw xam nga fi réew mi toll fi réew mi toll lu ñëpp soxla la. Mm-hmm. ak gouvernement mais réew mu am démocratie am xëccoo ñi bëgg bari nañu ku jàng nekk université génne université dajale say diplôme bokk nekk doomi réew mi ndaw ñi màgg mais seen objet mooy nan la ñuy def pour yor seen Sénégal ba tax na yëf yi moom faaw mu xumb faaw mu neex mais na am jàmm mais am nañu wax nga xam euh, Pape Djibril Fall gis nañ ko ci kaw fi mu ne nii nag boo bëggee dëgg-dëgg Ida ni man mii ñàkkul ku ma gis si kaw yow ñàkkoo koo gis si kaw keneen ñàkkul ku ma gis si kaw coow li moom nii rek la. yow dama lay wax rek xam nga tey xam nga tey tey soxnaay de Saliou ñàkkul koo xam ne moom la bëgg ñàkkul koo xam ne tey bëggul sax doon président te maa ngi am yéene bëgg mu nekk président. Mhm. am na koo xam ni waxugul waxu bokk te dina bokk. surprise day bari. surprise day bari. idée ni xale yi war a posé wu candidature dafay bari. waaw ah boobu bari de. bari na day neex. day neex moment yàlla na am yàlla na am. mais day neex moment ji demaat ci ak caay te rek. yàlla na am deux mille vingt quatre la ñuy wax. yàlla na am. Ah. loolu la ñuy ñaan yàlla na am deux mille vingt quatre. waaye bu doonee am deux mille vingt quatre ñu ñu day neex. waaw demal loo ko laaj ma leneen tëbal foofu nekkal ci leneen nekkal ci leneen. loolu de mooy. nekkal ci rek am wala du am duñu duñu askan wi. yaay nañ jëm man euh, maman ñu gis ne en fait euh, gis nañ euh, bi nga li xam ne ñaawteef la fële ca géejawaay muy loo xam ne xale tout tànk la te sa sa sa jëwrin bi sa sëriñ sa gàllaaj te lépp muy sëriñ Saliou li mu gënoon a bëgg li mu gënoon a fonk mooy ndaw te gis nañ fet xale bu ndaw bu ñu rey fële ca géejawaay xale boo xam ne moomin la tey ñu rey ko rey bu ñaaw a ñaaw a ñaaw ci li nga xam ne moo di kaw terrage rendi ko yaay booy bi nga déggee loolu lan nga wax ak lan ngay gën a euh, la ma daan wax rek yow xam nga sa sa site bi miin nañ ci man. Mm-hmm. la ma daan wax rek. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ma daan wax rek ma danga ko wax rek kuuraayu ko. Euh, Sénégal bii ñu nekk. Euh, bu nee naa la ñetti rey am. bi day rey. làmmiñ bi di rey. jëf yi di rey. yàlla na yàlla musal ci yëpp nag. ba tax na. ki ñu rey sëñ Fallou la tudd. allah akbar cinq ans la am. kër baayam lañ ko fekk ci li ñu wax. yuuxu dina jëf fuñ ko yaakaaree wut. kër baayam lañ ko fekk rek ci kër baayam néeg baayam ci néeg bi mu tëddoon lañ ko fekkee yanu ko yóbbu ci kaw. te dégg bi ñu ko am na xale yu. jam reen di am ñeneen ñu fa ne yuuxu dina jib fuñ ko yaakaaree wut. dégg naa bi ñu koy jël am na xale yu ci biir néeg bi. ak moom yuuxu dina jib fuñ ko yaakaaree wut woon. te sunu réew bi mhm. ku fi rey nit tey balaa jant bi soo wala suba di nga mais yaay loolu yéwéne bañ monde lañ nekk. waaw monde monde xol yi lañu war a defaraat. Mm-hmm. defar jikko yi defar comportement yi. Mm-hmm. defar yéene yi. Mm-hmm. xol yi la xol yi lañu gadoron. xol yi ci boppam moo am leneen lu bokkut ak lii ñu bëgg. idaani li may wax ne paaka mburu yi nañ ko ragal bale taxaw yi nañ ko ragal. parce que munoo chaque jour toog di yàq doomu aadama ju ju set. di saaga ku ndeyam liggéey di wax wax ju ñaaw joo tegul fenn. war maalatuñu sëriñ si di leen wax lu mel ni musiba ana yar bi ana diine ji ana ngor yi ana jom yi ana deretu garmi yi mhm. lépp lañ dëxañ takk ci mbuus denc waaye fa ndox daan taasaay ñëwee fekk fa tepp teppal ñii baax dañuy baax ba faaw mhm. ñi jaay seen ngor dañ koy jaayee nu ne toog nekk mag toog di wax li ngay wax yëpp mu wër na ni yow yaa ngi kàcc tëdd di saw sa bopp mag mu tëdd di jaaxaan di saw sa bopp mhm. ku mën na nga nekk ci li nga mhm. macha allah am na solo vraiment message am na solo ñu jàll ci li nga xam ne rek tuuti moo di seet bi ak li nga xam ne moo di pommade yi xam naa euh, waxtu bi euh, li des bariwul yaay boo ci seet gis nañu soxna Aida Saliou ba mu nekkee ci kaw ba léegi baar yi dafa yokk mais wàññi waay macha allah day gën bu yàgg a bàgg macha allah daan da travail de maman may woo Europe euh, soxna Aida Saliou seetam dafa leer boo ñu wax ci sa seet xam na ñëwaat bi mais. dinaa ne man huit ans laa tàmbali. li may tàmbali gars yi tàmbali wuñu man dew ma nekk tailleur ba mu yàgg nekk seetkat. dafa bëri loolu nekk baykat ba si yàgg nekk seetkat. wala nekk journaliste ba si nekk seetkat. Mm-hmm. jógewu ma suñu dëkk wàcce sama saak di jaay doxut ma lal man damaa juddu waale seet. man damaa juddu imaam bi di ma tudd avion bi ne réeru daan imaam bi teg ma daw jéggi ma. allah idaani ma tàmbalee seet idaani ba ma dalee seet ba léegi du ma la ni luy sa soxla sa turoo sa sant laa lay laaj toog di la seetal di la wax lu mel ni bànjool ak lambam idaani tooguma di gratuite seet mayewuma ko dama koy liggéeyee ah, waaw li sama don la mooy sama travail au pays danga may fay ma seetal la mayewuma ko looy maye danga koo muum eh, ah. li ma muum dama ciy liggéey mooy sama travail mooy sama société mooy sama entreprise de euh, euh, euh, de vie de vie damay liggéey man seet laay def moo don eh, moo ma may personnalité moo ma def naanaa moo ma def ni ma doon mère idaani man dum set set ah, set seet moom mhm. may seetkat bi waaw loolu ñëpp du rajo mais seetkat bi rek maa yëkkati loxo ca kaw wax dëgg yàlla képp ku muy seet jigéen yow lay roy képp ku muy jigéen yow lay roy te bu sañoon mel ni yow moo tax ba ñëpp ma toog internet yow laay may vidéo ak ñenn ñi. Mhm. mais vidéo internet sax wax dëgg yàlla nag. pare défendre semence si quoi. maman ñu ñëwaat li nga xam ne mooy pommade bi mooy toj dëkk bi mooy toj Dubaï mooy toj États-Unis mooy pommade bi maman wax nga ci pommade bi parce que lii kat. gis naa pro boo xam ne dafa gën a télé ah. kii moo lay fekk ci 7 centimètres. 7 centimètres yóbbu la 46 centimètres. Pape Diallo xam na ko. moo la ko wax xam na ko. eh xoolal Pape Diallo xam na Pape ma ko may pour mu mayewaat. ah nga torop. gis naa lim yëpp. yaa may dégg lim naa lam sol. bii <laughs> mais ci laalu bébé dimanche de dimanche fàccion ngay def. laalu bébé Pape Cheikh plante na la pare yow ñu naan Mbapal. Pape lay def mooy Mbappé la sol. tey nga dee. mais deux dama gis mu sol tubaab bu Mbapal la sol Mbapal li ñu Mbapal. non man amoo pommade deux jours nag ay jaay nit pommade naan ko ay deux jours ñetti fan ñeenti fan xam nga taxaw di fen sa dara wóoru ci man du ma ko def mhm. idaani fi laa dëkk fi laa juddoo fi yaroo mhm. te fi laay te fi bëgg a dee nag su ma tukkee damay dem ñibbi si waat pommade bi mhm. pommade bi c'est moi sept centimètres ma yóbbu la quarante six centimètres li publicité tuma ay preuve fi la fekk baax idaani ay preuve nga gis Mhm. preuve laa ngi loo xam ne du ma ko dugal télé ay preuve la ay client xam dañuy xaaj fa di wax mhm. lii dootuma ko wax ki client yi ko jëfandikoo ñooy wax quoi fii la am nag see mhm. soxna Aida Saliou euh, tey nag ñëpp a ngi jàmb karité ku daan wax yaa ngi jàmb say karité ku daan way yaa ngi jàmb say karité ku daan taasu yaa ngi jàmb say karité ñëpp a ngi jàmb karité kii maa ko mocc maa ko liggéey c'est mon travail. c'est mon travail. diplomate li yokk leur di Sénégal. li yokk leur Sénégal ci français yi. ok mu ngi noonu damay dégg nag war a sama sama sama sama laaj xaw a di tuuti. yaa ngi bëri. bàyyi ma di bokk ak xam nga sama kër yaay daa fu ñëwee mu jox ma étranger li ma tegal mënu ma ci dara. bi ma ñëwee dama xiif mais mooy dem biir bi day fekk dell. maman da nga bëgg dibi suba teel na. waaw dama bëgg dibi macha allah mais fii laa ko euh, mbokk xam nañ macha allah. saa yu fi ñëwee daay ndekki ndekki bu rëy yi. ñun dañuy tabaski saa su ne murit. waaw tabaski ñun safar gee tàmbali ñun safar gi nii moo tàmbali safar gi dañu mel ni dañu dañoo nekk tabaski. safar gi tàmbali waaw ñu gis ci image yi geste bu rafet boo xam ne da nga ko def geste boo xam ne moom la Sénégal bëgg mooy culture Sénégal te mooy suñu vrai vrai jullit muy dimbalante ñu gis kaay ma lebal la gis nañ lu nekk kaay ma jaay la kaay ma lii mais kaay ma lebal la yaay booy slogan bi. mais Italie. image yaa ngi doon daw. xaaral ma xool tuuti image yaa ngi daw. Eh, eh. Abdou Aziz le grand monteur. dugalal image yoo xam ne saal ñu xool mbooloo mi kaay ma lebal la mu ngi noonu gis nga eh. image yi mu ngi noonu. Euh, te fii ci parcelle nag euh, ak soxna Aida Saliou la grande voyante maman nationale tey dañ lay bàyyi nga expliqué ñu kaay ma lebal la. waa Idaani. Mhm. buñ tolloo fii Sénégal tollu tey. Mhm. ma doon voyante du peuple. Mhm. de ren de des voyantes. ren des voyantes. Euh, toog tey yor 15000 femmes gox bu nekk gox goxaat. pays bu nekk réew mu nekk village bu nekk soxna Aida am fa pamelu soxna Aida keppaaru soxna Aida Saliou mhm. mais keppaar gi bu dee dox ñu wuy dénk ma seen bopp mhm. ànd ak man ci ngor mhm. ànd ak man ci social ma ànd ak ñoom ci développement bëgg ñu bañ a dem di leen tàccaloo bañ ku leen yàpp bañ ku leen fowe tax ma ni leen kaay leen ñu def liggéey man maay génne social bu kenn génnewu ku mën na def man ku ma toppandoo ci social mbaa toggal daara boo ko toggee tey doo ko togg suba. maa doo añ. Mm-hmm. est-ce que dégg nga li ma la wax Ida. maa la dégg baax. Euh, ma woote kaay ma lebal la waaw bu ñëpp di wax kaay ma jaay la mais jaay waruma damaa war a leble. lebal la ration nga fay sa bopp. loolu. maa jël samay propre moyen jëndee ration bi may la ko fekk sa la ci sa gox may la ko Ida nga commencé ci démarrer liggéey. idaane ku xëy di nga taal keppaar gi laa woote. keppaar gi ku xëy di nga taal. Ah, boo taal doo dem keppaar gi idaane boo amee sa ceeb am sa diwlin am sa café am sa suukar am sa café waa idaani soo ma la ko joxee nga xëy dem loo fanaanoo sa borom kër fanaanoo nga teel a taal añ bi di teel a gos sa xel di dal nga nekk ci li nga war a ne saa yu jant bi sowee wërsëg ñëw nga def ci sa pot dépasse bi bu naajee nga def ci pot bu doom li jëntee nga def ci pot doom yi dootuñu dem ci gaal gi mhm. ñi dem ci gaal gi ñëpp fitna gi seen yaay nekkee ci bëgg a taal tey naaje moo tax xale yi xataraayu dem ci gaal gi ma ne leen bu leen dem ci gaal gi toog leen ma jox sa yaay ration nga dem liggéey liggéeyi daani doole boo ceg-cegee ba mu naaj boo amee ñëw jox sa yaay mu yeb ci pot bi mhm. bu pot bi amee dara mu ñëw fay si bu webi dee bu fay see ñu defaat ko ci pot bi muy avantage yaay booy mhm. i daan looloo tax ma indi kaay ma lebal man sama groupe damay leble ciment hmm? dañuy leble fer boo bëggee tabax néeg bi amagul daal dañ lay lebal ciment lebal la suuf lebal la béton am nañ ay sponsor buñ la lebalee ngay fay ndànk-ndànk su sa kër feesee ñu lebal la débouché ko nawet la ñu nekk. Hmm. da ngay bëgg a taal douche bi fees. dara nekkagul ci kër gi mën nga nekk maire. mais dama lay jox dama lay ñëw ngaccal la woo oto bi mu ngaccal la ñu débouché ko ba mu set nga dugal boo amee 1000 francs dugal boo amee 2000 dugal saa yu matee fekk moom fosse bi moom liquité wu na. ñoo man ñoo ëpp doole sama doom a way mhm. maa yaayu faramareen bi ñooy borom réew mi di allah am na solo lan a adhéré ñëwal adhéré man kay waa adhéré bi laa bëggoon boo mënti soo yoree mbooloo yor sa mbootaay mhm. mbootaay ma di sooxe ngeen di góorgóorlu woo leen soxna Aïda Saliou mu ñëw soutenir leen allahu akbar ci départ bi dimbal njaboot soxna Aïda Saliou très bien ànda gu ñoog nag benn opposition waxoon gu ñoog benn opposition Mhm. ku ñu laaj preuve ñu war la suñuy preuve. wax nga maman nationale mais maa ngi doog di gëm na. maman international. waaw international <laughs> waaye maa ngi doog di gëm na nag yaay maman international. parce que lii c'est la première fois ma gis ko ci Sénégal kaay ma lebal la. muy ndimbal boo xam ne ngay dem ak sa propre moyen kenn nekkul sa ginnaaw est que waa nekkul sa ginnaaw sama ginnaaw ak sama kanam sama main gauche main droite la nekk. ak ay dëggu am booy Alioune Sow waaw. wa eh, sama rakki bopp sama taaw. magi waali waali waaw. nit ku baax nit ku bëgg soxna Saliou. am soxna Aïda Diallo mu Cheikh Béthio. wa eh, am nga am nga ay daanaan nag de. yaayu Maguette yaayu yaayu Fama. am am am am am am am booy bi Diop. booy bi Diop. booy bi Diop. booy bi Diop waaw xam na xam na boppam. waaw. moom nekk loo xam ne yombul ci senegal kaay ma jaar kaay ma lebal la bon nekk loo xam ne. lu baax loo nekk am sponsor. waaw Idaan. mbaax goo nekk da bon moo am sponsor. bon. Mhm. moo am sponsor da ngay ne ci lu bon. am ñu lay jàppale ci mbon gi. Mhm. di ko xëccoo di ko sulug nga nekk ci mbaax. Mhm. am ñu ñëw ci sponsor bi bëgg koo yàq nga ne ci mbaax gi am ñu baax loolu bëgg a def lu baax. mais loolu loo nekk am sponsor ah. loolu nag. Ah, ah, pare nga amatoo loo laaj. kon wasalaam ñi ngi tàggatoo ñëpp di lay ñaanal jàmm mucc muccule waaw ci site bi la woon rek xam nga ni idaani moo ñëwoon di laaj yaayam idaani faramaareen idaani raquwaal yi yéen rek yéen a ma mën a génn ma mais dama ne woon fii ak safar gi dañu nekk ci liggéey sëñ ma bi maa ngi woote nag majjal gi legetu safar ah, waaw képp ku am duñu ko yor nag di ko wëndaal ku am loo ci a def ci liggéey sëñ def numéro baa ngi ci baana écran wooteel def sa jëf yow yaay sa numéro bu la neexee wax ko direct ci baana écran bi xam nañ ne loolu am lu ñu ne jox jox ci baana écran bi képp koo xam ne bëgg nga bokk rek yaa xool ci loo bëgg bokk dangaa ngaa bëgg a bokk adhéré ci keppaar gi muy góor muy jigéen yow mi nekk diaspora yow mi nekk extérieur yow mi bëgg dimbali nit tax amoo foo jaar jaaral fii boo ñëwee ñu def ko ci askan wi soo bëggee bokk ñu bokk jàppale la ki bëgg ñu jàppale la ñëwal ki bëgg a jàppale nit ñi ñëwal ki bëgg bokk ñëwal ki bëggutal a bokk te am ku mu bëgg bokkal ñëwal woonan ñëpp leeral nañ merci beaucoup tëjal nga sa bopp merci tukki du bari ci gaaw moo ma jëriñ gaaw

am nañu ay téléviseur de haute gamme dimension boo bëgg am na fi image yu leer man yii xeetu image man musuma koo gis muy 40 pouces 48 50 65 75 ba ci 85 suñu numéro téléphone mooy 77 921 59 92 American Shop suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci Ndakaaru mooy gunge ñi yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à coucher ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ nañ ay lampe abat-jour yu koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw si gaaw ah yéen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American Shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu hôtellerie bàyyi wuñu appartement meublé yi yow sa appartement da nga ko defar ba mu baax waaye am na lu manqué li mu manqué ñun ñoo ko yor di ay xeetu meuble yu baax ay ak à coucher benn détail duñu ko bàyyi ba ci serviette yi nga yi bu ñuy ñëwee ah, su suñuy xeetu matériel moo mujjee xew ci àddina bi jugee fële ci Amérique am nañ ay chaise roulante muy suñu papa yi ba suñu maam yi suñu chaise roulante yi dafa baax lool ñi nga xamante ni dañu am ay jafe tànk mën nañ ci toog am nañ ay béke yu dëgër yomb a am nañ ay piliyaan suñu piliyaan yi nag yow xoolal bu la neexee da koy lem def ko chaise bu la neexee ubbi ko ba mu baax def ko lal ñun American shop dañu sóoraale suñu rakk yi suñu doom yi waaw six ba dix ans lañ leen ay dàll yu rafet couleur yu baax ci été bii ñu nekk ah darab yaa ngi fii coton cent pour cent waxoon naa la ko sànq waaw waaye foog ma leeral ko am nañ ay mbàjj ay ensemble ah yi xeetu coton suñu parfum yi nag dafa léger ndax ci tàngaay la ñu nekk waaw parfum yi dafa lay jox xeet bu neex góor jigéen ah suñu frigo baar yi dafa baax ci tàngaay bi waaw boo koy utiliser du la tardeel benn yoon dangay teg même pas minutes mu jox la ndox bu sedd American soap waxoon naa la sànq ne yóbbaale ma ni eh, kuy dóora man kuy saaga dañuy jaay ay vaisselle suñuy xeeti vaisselle yi ensemble am nañ ay filtre à eau am nañ ay thermos yu ànd ak robinet da ngay def sa ndox tijji mu daal di xel yi ah yow miy dawal moto ñun waa American shop sa kaaraange def ñu soxal moo tax ñu àndil leen ay casque original am sécurité jóge fële ci Amérique waa American shop ni ma usan insistel ci suñu matelas yi wàllu tax matelas gonflable la da ngay gonfler ba mu jóg nga nelaw ba yandoor boo paree daal koy tëj def sa saak boo amee xew mën nga koo utiliser booy tukki mën nga koo yóbbaale kon sa màggal dina gën a neex boo ci àndee American Shop wax naa la numéro téléphone bi loo bëgg a xam adresse bi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi jàkkaarloog seen karo kër Xaadim man daal American Shop jaaxal nañ ma ñoom bàyyi wuñu